est-ce que jigéen war naa imposer jëkkëram lu mu mënul ba muy andi ay problème ah waaw am na góor ñoo xam dañoo waaye di nag de ñoo xamul da nga leen di xool rek bere leen da leen di xool rek bëgg ñu dee parce que jigéen da lay téye di la manipuler nga góor loo ñàkk ñàkk ñàkk diiñal amal amal looy bañ bul nangu lu ñu buub këpp gis nga jabar bu ñu ba jox la ko yaa ko am nag nga xam ne am nga ko defal mais nag lu ma amul óomu ko te benn jigéen du ma jaral man ma rey sama bopp ci lu ma amul su ma amee nag daw ma lenn dinaa daw jox la ko parce que yow laa am yaa ma jural samay doom mais ci kaw nga xam ne kii muñkat la ngay waxtaan ak moom manque nu communication yi def ciy gérer nag ba tax jigéen ñu baree ngi fi xamuñu lu seeni jëkkër am ak lu ñu amul parce que waxtaan amu ci su waxtaan day am sa soxna dina xam li nga am ak li nga amul su la bëggee dina toog muñal la ci. mais soo ko bàyyee ci biir lu la laaj nga jox ko bis boo xëyee ni ko yoruma day defen da ngaa bañ te joxoo ko kon nañuy waxtaan ak soxna yi ñuy xam lu ñu am ak lu ñu amul di xam seen doole jëkkër fu mu toll ndax yaakaar naa jamono ji jigéen ñi ay jàmbaar lañ ci côté boobu dañuy daw lu bari di jàppale seen borom kër kon na day baax communiqué boobu soo amee fukki junni ñëw ni ko fukki junni yi kat moom laa yor ngeen toog waxtaane ko jël la am jox ko mais bul ko rek sëy la sa yoon nekku sama vie tekkiwu fi dara loo am xamut ñàkk xamut mën a yërëm ci lenn kon góor ñi nañuy waxtaan ak soxna yi ñu mën a xam fu seen niveau di toll pour mën leen a yërëm nan la mën a téye jëkkëram ci biir néegu sëyam. xanaa ñeme lal ba bu jigéen man lal damaa bëgg xale bu ko nag damaa bëgg xale bu ko tey bàyyi guddi bu guddi rek lal da nga koy diita mbalee foo ko sentir xam xamu sëy amul heure sëy amul heure te gis nga néeg dafa bokk ci lii góor xanaa xamoo ni euh, góor boo boo boo boo bandee surtout xale yi tey booy taaw nii. il faut nga bandi soog leen mën a téye boo fi nekkee rek nooyee la kat tubaab tubaab lu bu baax maanaam kaw lal mënul génn parce que lal fa la doom di sosoo lal foofu la doom di baax te nangu mooy tax doom ji baax amour bëggante googu mooy tax doom ji baax parce que yaa ngi mi ngi sosu ci mbëggeel mi ngi sosu ci amour ngay sentir ki nga nekkal kon kon néeg dafa bokk ci liy téye kër. dafa bokk ci liy téye néeg parce que góor boo tojee yuuram ci biir néeg pour nit këf ko say loxo du jomb na biir bi di fees bu mu tilim koo gis na xam ni kii mu ngi ci ay loxo bu guddee nekkal ci moom ba dégg mu naan la daa <laughs> bu jigéen yaa may wax loo de <laughs> ama góor gu nekkal ni ngay waxee am na ñoo xam ne taar kàlla dañoo réer di ngay dégg ñuy bëmm am na yoo xam dañuy xàq taay am na ñoo xam moom dañ ñu ko sant dañ koy defee mais ku ci xam sa waay bu fa toog moom muy neex bu guddi jotee nga teel a fa toog moom te am jotam te jël temps ci bi kaw lal bi am na kalaasu ngóoju mbay ko xam dañuy teel ni mbàtt dem na la bi góor jël sa temps jël sa xel def ko ci li nga koy def ci li ngay liggéey ak moom ni ko jàkk di ko xool di rey sa bët bi ndànk xeeñ lu neex set wicci daraay weexi jolli cuuraay li gun guni ndànk biir bi fees ngeen ko maa ngi nii te noo ko bëggee foo ko bëggee noo ko centré maa ngi nii sa jëkkër la kenn du la ko tere yaa ko moom te boo ci yox-yoxee keneen nangu ko te góor moo bëgg lu bandi góor bëgg ko yërëm ci ay kaw lal di negg-neggal bu lal ba dee neex jàmm rek ngay am biir bii fees muy set lan lay wëri feneen mais boole ci nag yow yow gaaw a gaaw a nelaw gaawa a sonn ca sëy ba yaa ngi dégg mu yoxee nga ne man maa sonn daal teel a wu sëy dong du mbir mi mais sëy lii tee mbir mi def ci bokk sëy kenn mënu koo génn ci couple nga ni néeg bi dong du sëy bi man loolu laay bañ a dégg néeg bi kese du sëy bi dëgg la mais néeg bi mooy bopp sëy bi mooy tat bi moo ko mën a téye ba tax ci nga mën a defal ak góor amuur ci ngay mën a xam ndox góor bëgg na la ci ngay mën a amee doom ju baax nag parce que néeg ba nangu la te nangu googu moom ngay amee doom ju baax te nangu boobu day ànd ak bànneex waaw waxuma néeg dong mais duus ak yaa ngi dégg boo wéeteeg sa jëkkër duus ba man fa muy sangoo sax lu jaxte comme ndox ma sax na ca ne bu toggee añ nga xool kër gi wéet yaa moom sa bopp escalier yi boo ko xoolee mu wéet yaa moom sa bopp kenn moomu la tool bi sa tool a bàyyee ko nu la neexee kon nañuy téye góor ñi di leen këmm kaay di sama bopp duma xaar guddi bu guddi rek fu ma wéete xam ne fii daray kii néew fi sàccantu googu ci biir kër gi <laughs> waaw bu jigéen sàcc dafa neex de <laughs> sàccantu dara dàq ko moom la góor di wuti ci biti yaay dégg ñu naan kii daa dem doxaane fee daa dem parce que day sàcc xam nga sa jabar moom bu la neexee nekk temps bu la neex ku la bett ak moom sama fu sama jabar la mais la ngay dem di commencé daw di dellu moo neex mu tax góor di wëri leneen kon sàccantu boobu noonu ci biir des fois nga ni coppet nii ci bëccëg gi des fois nga ni coppet ci yor ko yor yor ko muy tàkkamtu ko dese ay malaise muy tàkkamtu ko noonu nga ni ko ma ñëw dem defi ji lee dikkaat surtout fii réew mi toll ci mii réew mii nii nii nii fii temps bi di seet di nga xam des fois yàlla jëlee lu dem crise <laughs> temps bu jigéen bàyyi bu seet <laughs> damaa bëgg xale yi di gën a góor góorlu rek ci biir sëy bu baax a baax tey ñemee néegi tey waxtaan ak borom kër yi tey teg téléphone yi téléphone boo ci nekkee bëccëg ba sa boroom kër wàcc teg ko te nekk ci moom di jaadu ci moom nga def ko fexeel tëj yóor gi ba noo ko moomee waaw dugg ci fii dugal tànk ak dugal loxo yépp boo sëyee ni nga war a sëyee rek jaru ngay dem fenn di fa ñaanlu toppatoo sa borom kër ni nga ko war a toppatoo day daal di neex moom dong na doon sa yitte te goo ñi di waxtaan ak soxna yi di waxtaan ak seeni jabar di xamal ñoom fi ñu toll lu ñu am ñu bokk ak ñoom góor jabar soxna soo ko def dina toog sëy la te yàlla rek tax ndax xale yi nag am na ñu bëgg a sëy mais am na ñoo xam dañuy bëgg a sëy nag mais seeni borom kër ñoo leen xañ lépp tëj bunt yépp may ñu fun leen jaar amuñu daray bànneex ci xale bu ndaw bu soxla bànneex mën na pousser jigéen ci lu nekk kon góor ñi nañuy dimbali jigéen ci côté ndax ñooy suñu borom kër te ñoo leen yilif comprends leen di dimbali ci côté boobu jigéen boo ko bëggee rek xamal ni nga koy téye ndax bu suñu xel kenn duñu muur duñu joxi góor kon xel mu gàtt moom ak tane gi ñu tane moo tax ñu ñuy muur du leen ko jox kon il faut nga am yërmande te mën a muñ pour mën a téye jigéen te góor ñi jigéen tamit gën a góorgóorlu te xam ne borom kër ñoom lañ fa am mënuñoo dem baleen ñoom ñu mënuñoo dem bañu kon nay neex rek gis nañ jigéen yu bëri ñoom seen jonge ci biti rek la yam waaw am na ci mel ni Mbodia Mbaye de dañuy romb di ràjj takk téeméeri fenn mel ni fas wu rëcc <laughs> amul sens xam koo war a xam jonge dafa bëri façon nee naa leen góor moo koy def jigéen day mokk mokki biir néeg rajax rajax jeex sa biir néeg mais jonge say xariti jëkkër am na sens loolu tamit jonge la te jonge biir néeg beeg sa jonge sa xariti jëkkër bokkul ndax sa xarit jëkkër war nañoo ñëw yendu si sa biir kër nga toggal leen jox leen ñu lekk ñu naan loolu jonge la say njëkke loo am ci lu baax dafal leen jonge la say goro loo am ci lu baax defal leen jonge la kon jonge du ci biir néeg kese kon góor googu nga jonge nag nga koy def ci ay mbokkam ak ay xaritam mu day bravo kooku moo jonge jigéen ji dafa mokk rumba te boo xasee ba mu mokk da ngay mel ni tege-dege yooyu ñuy ràcc noonu di ko dikk daan ko daan ko riitale daan ko riitale muy tàll gerte googu noonu nga koy riitale di ko riitale ba mu doon ay dàllam nga koy dagg noonu ngay mel da ngay mokk rumbux te boo mokkee dara dootu la bëgg moo tax ñu naan kii dafa wow bët mais wow bët sa biir côté sëy dara yàqu ko am na xale yoo xam seen sëy kenn gérélu la ko li ñuy nekk nekk xale ñoo ko téer seen bopp géré ko seen bopp xam fa ñuy jaar la war ta ña nga ca te lépp ragal ko war jeeg du am fit du capable du ñeme kon jonge mokk dëgg loolu la sa xariti jëkkër dangaa war a jonge ci ñoom jonge ci say mbokki jëkkër jonge sa goro sa yaayu jëkkër jonge ci say njëkke jonge say jarbaati jëkkër bokkut ak mokk gi ci biir néeg bi nga war a jokkaroog sa borom kër di ko wan ne la may wane ci biti ci biir laa ko gën a mëne kon jonge dafa bëri façon du néeg kese la te néeg mokk la mokk googu nag mooy génn ba ci xarit yi mooy génn ba ci nday yeeg bàjjan yeeg umpaañ yépp nga boole ci parce que boo mokkee ku ñëw nga ko foog moom reeg moom teraanga ji donc du mbir mi jàmm ji ci la lépp ëmp te jàmm jooju dañ koy xale jéggi dañ koy war di bu baax a baax a baax a waaw jéggi dañ koy war di bu baax a baax jàmm jooju te jàmm jooju bu nekkee ci biir néeg bi day feeñ ba ci biti am na tey jigéen ñoo xam ni seen jàmm ci biti la ne moo ñu jógee ci biti di mittil ci néeg bi am na góor ñoo xam ne ñu ngi feccal seeni jabar ci mbedd yi goro yaa ngi leen di feccal njëkk yaa ngi leen di feccal kii bu ñu xamoon seen jëkk jëkkër ji li muy daj ci biir néeg bi bu ñu duggee koro la bànneex di ga am seen jëkkër lijjantiwul ndax amul daray bànneex dafa jabaram ne tëll ñu koy feccale ko taasu te moom mi ngi muñ ci biir néeg bi dafa am góor ñu bëri sutura ñoo xam ne boo doon doon rend ci biir néeg du ñu wax kon nag jigéen ñi dañ gën a yu góor ñi gis nga sëy moom munoo fexe fexe fexe ba góor ak jigéen yam munul nekk góor ak jigéen mënuñoo yem il faut jigéen ji wuti gën a sonn ci biir néegu sëyam mais nag mënoo jël sëy bi ni góor ak jigéen yépp ñoo yem jamais de la vie mënul nekk parce que jigéen ji wuti moo war a gën a sonn ndax kenn gis ñuy móor góor naa ko demal sëy boo demee jur fa doomi baax kon jigéen moo koy sàkku moo ci war a góorgóor te moo ci gën a sonn ndax lu baax mooma te lu bonit mooma kon nay góor muy jàpp muy baax gis nañ góor yu bëri dañuy takk jabar yu bëri daal di jéng fas yéene féete ci kenn yow loo mën a wax ci loolu ah cin bokkul safin nag da ngaa bëgg a xam ah <laughs> ci bokku safin temps bu jigéen xam nga góor bu yoree juróomi soxna am na ko ci yóbbu yombal xiyaam ba mu séen nii yombal xiyaam wàññee ko <laughs> parce que lan mbëri ca làmb ja danoo mënante roi des arènes dafa am ti des fois nga dégg Balla Gaye roi des arènes la Eumeu Sène roi des arènes Modou Lo ñu ngay toj làmb gi lan danga koy xam gis na ne mbër ya mënantee ca làmb ja loolu lu jigéen ñi mënantee ci biir néegi laa ilaaha laa am na góor ñoo xam bu neppal lañ fi ñu ne ba soro fole danaa ndekete li amul fekk keneen la ngeen téye di leen riitam mbale te fekk ña nga nekkoon ca mbooja mbaay mbooja mbaay ni xàjj xamul fu plaisir ne lu jëntewul xamalu la dara ndax am na góor ñoo xam dese nañoo yàqu ci jigéen boo dajee jigéen du jigéen di sob nag yàq la yaxeet moom rek ngay xam waaye boo amee jigéen joo xam daa mel ni mbooja lijjantiwul lu lay neex yow lijjantiwul lu lay naqari bu la keneen kafee moom la te ñeenti jabar yoo yor nag am na ko ci doon façon naaru góor lii tap maa ko wax man Mbodia Mbaye ñépp du ñu il faut nga am koo xam ni yow moom ngay nekkal xam yow nekk nga ak nag xëy na bind ba yàlla bind benn la mais lay neexal mbir ma ak fa ngay jaar ku góor ka ba tax bu la nee jàkk di la sax ba tamit day day jooy ah xam nga bokkul nag kon ñeenti jabar yoo gis si kër ak juróomi jabar yoo gis ci kër du ñu benn moo tax ñu naan ñaareel bu ñëwee daane daane aawo ñetteel bu ñëwee daane ñaareel ñeenteel bu ñëwee daane ñetteel déedéet ñaareel mën naa ñëw dellu ndaare aaw ba toogoon fa mu toog ba léegi parce que la yëngal jëkkëram ci moom la ne te jaarale ko fenn daa xam la muy liggéey des fois nga gis aaw bu ñu jël falaxe la fële parce que da ngaa tële ba ñaare ba dikk dominé la kon dominé bi du aaw du ñaareel du ñetteel gën a mokkante rek la te ñépp nag yamuñu ku ne a yam ci jigéen eh, nga gis ko gedd cëram de ñépp yamuñu de di ndukkul sa finde doo ma yakkal du ma la yakkal. <laughs> da nga am problème ci sa biir néegu sëy moo xam <laughs> kattan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe euh, gaaw a daanu seen gam kattan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kattan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kattan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.